téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex. ñoom jàmmante nañu ah oui bon di saf na kii ah oui attention Jackson d'accord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 li may def nag mooy bàyyi leen ngeen dem déglu li nga xam ne moom la yëglekaay yi indi tey ci àttali ci asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 21 juin dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb tey xëtam mu njëkk lam ca xëy fesal dafa dellu si ci samedi ji nga xam ne moo amoon bërki démb di samedi Vox Arena ja ca arène nationale la fa xewoon nag yëglikaay bi ñëw na ci diggante Franc ak Tyson de mel ni ki sunu làmb moom la mu gis nee na ki nga xam ne nii daal moom moo di Tyson de Franc soo bëggee dégg dégg maanaam ci 32 secondes la ko Franc wan boppam dal di ko daan mel ni kon daal coow loolu tey wala combat boobu yëglikaay yëpp ci ñëw les arènes tamit dikk ñu ci waaye suñu lamb moom xëy na daal xamal ñu ne daal fanweeri seconde ak ñaar la ki nga xam ne nii moom moo di Fra One Tyson 2 boppam lato ma nga xam ne nii bokk na si ña ko encadré di ko entraîné maanaam nee na Fra dañ ko jàngal xeex ci combat bi bu baax a baax a baax rawatina coach su jamono ma nga xam ne moo ko yoroon di ko liggéeyloo moo ko teg ci aw yoon ci côté xeex ba nga xam ne jàpp na ne lii ci am bettu leen dóor mu daanu bi ki nga xam ne moo di Lato nee na nekkul loo xam ne lu leen bett la Ibrahima mbay nekkoon ancien ancien entraîneur ci écurie Fass la mu gis daal nee na Tyson 2 li ko yóbbee lii yëpp mooy wekk ñàkk a wekk sa adversaire nee na adversaire boo jàkkaarlool yaakaar na yow sa doom ja nga yor sa kër di ko joxub ceeb moom nga jàkkaarlool ba nu jóg ne dama koy dumaa ji ni mu la neexee nee nag nit ki soo ko wegulee maanaam yu mel nii dong moo la ciy fekk maanaam kon Ibrahima Mbaye li mu gis mooy Tyson 2 bëre bu tegu ko ci yoon tey suba waxi noppi nee na loolu moo ko yóbbu lii ki nga xam ne ni moo ko dal moom Franc daal daa mel ni kon daal loolu la def fa nga xam ne ni moom moo de ca arène national ja ci samedi bi nga xam ne ni moom la ñu génne mel ni que nag ci arène nationale boobu ba tey bu ñu continuer ba bët setee di démb Fallou Ndiaye fa wooteeti woon beneen doomi parcelle ñëwati fa mooy ki nga xam ne ni moo di Blindé waaye beleen Blindé day soo bëggee dégg dëgg la Franc def Tyson 2 daa mel ni lu ko raw la def Bébé Birahim ndax moom itam dëkkoo dóor ba mu tëddal boppam mel ni kon daal parcelle soo bëggee dégg moom weekend bi seen la seenu yaram tàng jër jër jër la ca def yemuñu ca ñoom waa parcelle ndax yëglikaay ba mu ngi nuy xamal ca biir tamit dinu xamal ne ba tey ca parcelle rek ak Rock Énergie xale ba nga xam ne moom lañ jëmboon tamit samedi indi ko ara fa nga xam ne moo doon ca Isa Diop Iba Mar Diop muy Baaba Maal Jackson nag moom moo tëggoon booba combat wala boog muy Boy Sine Baaba Maal bu sumbe jun daal yëglikaay wi nan coow la lam doon bëri bëri ak la coow la doon bëri bëri ca signature fa ñu mujjee mook boy sin boy sin daal tekkaaralam ja mu defoon ba arbitre soufflé war na ko ne man tekkaaralu ma ci ab géew maanaam boy sin tamit bu parcelle ba tey dafa daanaat ka nga xam ne moo doon baaba maal ca faa nga xam ne moo doon stade Iba Mar Diop jàk sa jaara fa mel ni kon daal soo bëggee dégg dëgg parcelle moom weekend bi seenob weekend la muy arène nationale samedi ñoo fa daan dimanche ñoo fa daan stade Iba Mar Diop sant tamit waa parcelle ba tey ñoo fa daan mel ni ko daal parcelle fi mu nekk nii soo bëggee dégg-dégg seeni mbir mu ngi dox ba yegg ci lool lool lool waaye la nga xam ne nii nag moom la waa Vox Arena defoon mel ni ki nag yëglikaay ba ñëw na ca xam nañu day kar arène nationale yëngu na lool moom sunu làmb ca touché ndax ka ko yëngal nag du kenn ko dul mbayang lu ma nga xam ne yëglikaay bi jàpp na ne moom lañ taamoon ca ya mu assuré la nga xam ne moo doon spectacle ba yemu ca moom sunu làmb ñëw na tamit ci bés boobu reporter yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci làmb ji te ne ci presse en ligne bi tamit mu mel nañu en masse te drapeau ba nga xam ne waa Vox Arena delloo woon nañ leen ko njukkal mel ni kan daal kere ñoom itam seen xool sedd nool ci njuutal seen njiital président ba nga xam ne moo di buur géwél ma nekk fa nga xam ne ni moom moo di ca Dakar Acti yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki non ba tey balaa noo génn suñu làmb ci wàllum làmbi bi simple ji tamit daa mel ni ki ka nga xam ne nii moom moo di Touba Kota daal moom moo ne ngañ seen fa nga xam ne moo di ca ñaning lool ci làmb bi simple ja la yëglikaay ba moo xëy ñëw gën wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem les arènes les arènes tamit dafa dikkaat fa nga xam ne moroom ci arène nationale samedi ji ak waa Vox Arena Vox naa daal yëglikaay bi nee na seen combat ñoom daal la ñu jàpp ba bu fekkente ne sunu làmb 32 secondes la gis moom les arènes 45 secondes daal la jàpp ne ca kii di fara maanaam humilier Tyson 2 maanaam daal dóor ko ay coup ba mu wàcc mu fekk ko fa mu fekk fa mu nekk bës ko mu daanu làmb ja daal di jeex mel ni kenn nag waa jàmbaar wrestling académie daal fi mu nekk nii maanaam ñu ngay liggéey bu baax a baax Balla Diouf tamit ñëw na di wax ca combat ba ca la nga xam ne moom moo di les arènes jigo mi nga xam ne ni moom mooy rek Tyson 2 tamit maanaam daal wax na ca combat ba ak la xam ne moo leen ca dal wala ca dal la nga xam ne ni moom moo di seen mbër mel ni ki nag Franc la ko gën a yokk jom bokk na ci ki nga xam ne moo di Eumeu seen moom mu gis mu ngemb Tyson 2 indi ko ca làmb ja yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki non non moom yëglikaay bi ba tey ñëwaat na ci beneen doomi parcelle boo xam ne itam daal ca samedi ja na ma leen ko waxee woon rek mu nga woon fa nga xam ne moo doon ca stadium Iba Mar Diop muy booy sin lam fa wan baaba maal daal moom la ñu yëglikaay bi xëy tey fotool ñu ko wan ñu ko bu ñu duggee ca biir yëglikaay ba tey moom les arènes Garga 2 ba nga xam ne waroon naa bëre samedi ak Mama Lamine te combat ba mu jotul am Garga 2 daal maanaam mbir nee na metti na ci moom lool lool lool ndax nag ñàkk na ay millions yu bare bari ci combat boo xam ne pare woon na ngir bëre ko waaye nag moom ne na mbir yooyu yëpp da koy jël rek delloo ko boromam ndax jàpp na daal maanaam ab jaam bëgg-bëggam dong la am ak yéeneem waaye dogale moom suñu boroom maanaam moo koy def mel ni kon bés booba daal kere moom loo bëgg soo bëggee dégg-dégg maanaam nekkoon na bés bu neex a neex samedi ji nu génn yeneen doomi parcelles yoo xam ne nag moom maanaam ay sanction daa mel ni dina leen dal mooy Papa Sow góor a soog yëglikaay bi nee na maanaam waa CNG daal la ñu xam ne mooy ñu mbër moo xam ne bokk ngeen écrit ngay ànd ak moom di ko accompagner te ñoom loola la ñu def kar te ñoog Franc bokkuñu ak moom benn écrit ca kayit ya loolu yëglikaay bi moom moo xëy wax na ko moom les arènes nii ah loola waaye mën a def wax daal maanaam fi mu nekk nii moom maanaam fa mu jaar tamit ba contourné ña nga xam ne nii moom mooy waa parcelle Mboro ba bëre fa nga xam ne nii moo doon combat ba samedi yëglikaay bi ñëw na ci maanaam moom Franc tamit wax na ci les arènes nee na kii nga xam ne nii daal moom moo di Tyson 2 daf maa bëggoon a humilier nee na nag lam ma yéene woon ñoo mujj a wàcc ci kawam beneen doomi parcelle ba tey yëglikaay bi ñëwaat na ak ndamam muy belende ak la nga xam ne ni moom la def bébé Birahim dóor ko ba war ci kawam waaye tamit yëglikaay bi dikk na ci la fa xawoon démb ca arène national maanaam yàq goo xam ne commencé woon nañ doon ko fa gisaat waaye mujjul sori ba tax pa Abdou Fall dal ci waa CNG bi xamal leen ne daal ñoom ñoo war a jël seen ay mesures nag maanaam ut ay sécurité yoo xam ne ni bu jaree sax ñu di leen fay sol leen ay gile teg leen ci kër kaw bi yi ñuy accompagner policier ngir ku fi tojati ab siège mbaa nga damm ko ñu mën laa teg ci aw yoon wala kenn dootu ko xalaat rek mel ni kon daal pa Abdou bi tam moom mi jiite promoteur yi mayewul dara waaye xaaye gay mu ngi koy dalloo yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax Equivox su tamit boo fa demee wala nga dem Lutte TV lépp lu xewoon ci weekend bi ci ay lamb da ko gis bu baax a baax a ba moo xam lambi simple ja la wala lambi dóor ja fara itam wax na maanaam te Equivox daal la mu xam la nee na Lac de Guiers 2 comme mook Eumeu Sène ñin lañ fi nekk arbitre soufflé ñuy lewaatoo jëmale suba nee na ñoom ñaar nañ leen tàqale ma dugg seen ab diggante ñu jox ma ci kenn te nee na kuñ ma ci jox maag yow jàppal na sama combat ak yow nii moom bu ko ci xalaat dañuy bëre ma daan la lool waxi Franc la fa nga xam ne moo di te Equivox ci loolu nag damay ñëw ci beneen combat boo xam ne la 4 juillet la war a am ki ko war a war a amal moom mooy Assane Ndiaye yëglikaay bi xëy na tey ci sunu làmb tamit wan ñu ko ci xëtam mu njëkk muy maam la numéro un mi ngeen xam borom top cinq ak mbay gu gi ma nga xam ne maanaam daal daa wulu boppam lool yëglikaay bi ne na kon ku yebo xaar tamit la 4 juillet combat boo xam ne nar naa metti lool lool waaye beneen combat boo xam ne le 27 juin dimanche jii nu jëm lay am ca stadium Iba Mar Diop ka ko andi moom moo di Mouhamed Diop borom jaay mars production mu dox ci diggante Bébé Julde école de Cheikh Mbamba ak Youssou Ndour école de lit Balla Gaye yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu beneen promoteur boo xam ne tamit ñëw na après tabaski daal yëg likaay bi ne na ca reefan prési production mi ngeen xam moom tamit daal tëgg na fa galaa boo xam ne nii bu mag a mag a mag a mag lay doon ca reefan ngoogom loolu moom après tabaski lay doon yëg likaay bi di suñu làmb mënu ko ndil ba tey ci biir tuus yi am na jeneen wax joo xam ne nii daal ku yebu tamit xaar ko ci Equivox mooy supporter yi Franc ya ak seen mbégte ak ay mbokkam ak ka nga xam ne ni moom moo di way juróom bu jigéen loolu itam ku yebu xaar ko mu di ab vidéo ca biir Equivox waaye li am ba des daal kon daa mel ni kon loolu moo fi dikkoon tey ci yëglikaay yi di wax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla jërëjëf bés bi metti woon na yoon wi guddoon na xat-xat yi amoon na waaye lépp yàlla mi nga xam ne mooy borom kun fa yàkkoon teg na waa Vox naa ci aw yoon ba ñu yeggale seen bés waaye tamit ma di leen bàyyiloo xel ci benn bés muy mercredi ginnaaw suba ca fa nga xam ne mu di stade Iba Mar Diop jàkkaarloo Tapha Mbeur Ada Fass Fallou njaaye koy def à partir de 17h kon ko yebu waaj te xam na fa fa itam dana xumb dana neex ak ay concert yoo xam ne moo ca nar a ànd ak waa Ndiaye production ñoom itam daal ku yebu daal waajal leen ci àllarba ji nga xam ne ca la ñu jëm. mbokk yi kon dégg ngeen ko loolu moo ñëw ci yëglekaay yi fa ma ko tëjee nag fa koy ubbee. maanaam àllarba ji nu jëm di le 23 juin arène nationale wala boog stade Iba Mar Diop à partir de 17h ak Fallou Ndiaye présentation Tapha Mbeur Ada Fass ak yeneen combat yoo xam ne war na am ci boobu waaye yemu ca présentation plus concert lay doon mu nekk loo xam ne innovation la nara doon ak lu nga xam ne tamit du ca yem da kay loo xam ne yaakaar naa bëriwul lu muy am Sénégal muy loo xam ne moom moo ko njëkk a def tey mën nañ ne boo amee fii Sénégal euh, maanaam présentation boo xam ne wala jàkkaarloo boo xam ne day am fay entrée payante maanaam 1000 francs lay doon parce que la ko waral mooy mbër yi muy présenté ay xale espoir la ñoo xam ne tey ci làmb ah macha allah yàgguñu ci mais seen tour sori na muy Tapha Mbeur di Ada Fass yemu ca da cay boole ay concert muy Fallou Ndiaye borom Ndiaye production loolu la nar a def àllarba ji nu jëm ca arène nationale. léegi nag suñ jógee si loolu tey di alterner comme ni ngeen ko xamee tombeeg lundi di le 21 juin 2021 yëglikaay sunu làmb les arènes Equivox. Lutte TV ku ci nekk li xewoon ci weekend bi ci lamb moom lañ ñu indil foo ci dem loola nga fay fekk li ci gënoon a frappé ni ñi gën ñu ci bàyyi xel nag moo doon combat Tyson 2 ak Franc nga xam ne moom moo amoon arène nationale le 19 di samedi jii ñu génne combat boo xam ne ah bëri woon nay wax bëri woon na coow yaa ngi dégg ñu ne kii mooy favori ñi ne nekkee mooy favori waaye comme li may faral di wax rek favori moom ci sport bu mu doon day am bu ngeen si jëmee sur les papiers waaye nag réalité terrain bokkul parce que boo leen doon comparé ci wàllu palmarès ak fi ñu jaar hmm, ba tey fi ñu yegsi Tyson 2 moo jiitu si làmb lutte avec frappe moo ci jëkk Franc jëkk ko ci am ay ndam ëppale ko ko ci kon bi ñu ciy dem man sama gis-gisu bopp man Babacar dama jàpp ne Tyson 2 mooy mooy favori te effectivement bu ñu demee ci kayit yi loolu moo fa am parce que Franc bi muy dem ci combat mi ngi woon ci 9 combat 9 victoire Tyson 2 romb na 15 victoire mën naa ne bi muy dem Euh, waa Vox Arena ñoom ñoo indiwoon combat boobu mu nekkoon journée boo xam ne defe naa ne keroog amateuru làmb yi bëgg nañ lool lool lool parce que combat yi li ci neex gomis mooy dafa commencé di jeex maanaam combat yu egg xam nga làmb li ci neex amateur muy bëre ji la am loolu dafay neex amateur te combat yëpp noonu la déroulé Franc nag one Tyson 2 boppam ci combat boo xam ne boo xoolee 32 secondes la suñu làmb wax les arènes wax 45 secondes waaye loo ci mën xam naa ne daal matul une minute xam naa ko. waaw parce que boo xoolee li indi nag combat bi li ci am am ci mooy Tyson de pour man ni mu bëree waru nee bëree parce que Tyson 2 boo ko xoolee ak Franc ci li avec Franc Tyson 2 moo doon may Franc saas te Franc daa nekk benn xale boo xam ne mu ngi yéeg yow nga jiitu ko raw ko ci làmba li avec Franc nga am loo ko ci rawee kon defe naa yow li nga waroon a bëri li Franc bëre moom la Tyson 2 waroon a bëre mais Tyson 2 dafa dëpp bëre bi sens contraire la bëre loolu nag li ko indi mooy xëy na atañ ko conseil ne ko comme mbëru simple la doo mën ta xeex nangam nangam mais Franc bu ñu fàtte ne ba muy bëree lutte avec Franc ba tey mbër dumaagu ko te amagu ci defet ki na gis caatu yof ak yeneen i mbër bu yàggul laa fa parce que mook bébé Saloum ah mook Serigne Ndiaye 2 mook ngeer bu zap kon defe naa ku mënta xeex doo bëreeg ñooñu di leen daan ci bëre door kon defe naa même buñ la nee mbëru simple la da ko war a duuma door ko daan non da nga ko war a kay may battement observer ko di ko xool ba xam moom lan la war a def pour nga mën a bëri si ak moom ci côté xeex te pour man du ngay xeex moom ci ñaari loxo parce que boo xoolee seen taxawaay Franc pied gauche am euh, la jiital yaakaar naa ne su ma juumalee su ma dikkaatee ci combat bi voilà Franc pied droit la dugal la taxawaay Tyson de taxawee pied gauche kon boo xoolee Tyson 2 su bëggee xee Franc da koy sori pourtant moo gën a gudd ay loxo mais du mën a dóori parce que kii droite la droite la jiital doo ko mën a dóor une yu koy dal moo tax nag bi mu asséné ay une mënu ko jot Franc gën a yokku seen diggante distance bi arrière ubbil ko ba mu sànnee ba xam ne kii jotatu ko Franc asséné parce que Franc boo asséné day dal parce que moo jiital pied droit moo tax bi mu ko ay kii rak rak rak ay rafal yu gaaw ay ay kii yu gaaw a gaaw Tyson de boobu tamit bi mu loolu mu jël dafa diis bi mu ko jëlee mu dese mu mu mu mu Franc wax na ma ko ne dama ko gis xam ne dóor naa ko mu mel ni ku ma fekkaat ko fa dolli ko mu yegg tëdd di jéem a génn foofu Franc fekk ko fa bës ko loolu mooy combat bi kon làmb mbër da koy jàngat gomis li ma la wax nii denc ko mbër su jiitalee pied droit yow nga jiital pied gauche yow mi jiital pied gauche bi waroo xeexe sa ñaari loxo au moins sa loxo gauche moo war di dem nga teg sa garde droite te barul di dem lu bëri moom mi jiital droit loxoom moom mi jiital pied droite loxoom pour mu ñëw sa kanam day gën a gaaw te pour mu doon la jot la day yomb combat Balla Gaye de Gris Bordeaux boo ko seetaanaatee li gën a indi problème bi ci bu ñuy léewtoo di xeex maanaam loolu bokk na ci parce que Balla pied gauche la jiital Gris jiital pied droit mais bu ñu jàppantee nag solonte ah foofu Balla mooy am avantage mën a dóor ay uppercut mais Tyson 2 pour man loolu lépp jàngatu ko mais nag bis bi ngay waree daanu ciw ne ngay doon ñu koy encouragé hmm, di féliciter Franc Franc nag li ma wax si moom rek waxoon naa ko ci li simple bi comme souvent da ngay wax si mbër sax ñi ñooy saran dañ naan danga ko faral fekk na du loolu mais mbër mu am fayda la Franc mbër mu xam li mu bëgg xale bu teg ay mbiram la ci yoon ci wàllu làmb nii mu nekk nii ci làmb de ci wàcculee xaw ma ëllëg looy xew waaye yaakaar naa daal fii turam bi yegg tey xalaat naa mu romb ko parce que nag il est sérieux et nit ku muus la te Bazakwa depuis États-Unis maa ngi koy wax na ma wax na ko dama franc ku nee na nee nga yàgg Lamine ku yeew la waaye xam ngeen sax ni mu yeewoo te effectivement dafa yeewu te basoka mbër mu bëre la xam na xee xam na taxawaayu mbër kon defe naa franc ñi ko yor tamit di ay encadreur yu am solo ah ñoom Papa Sow ñoom Balla Diouf ñoom Lato ñoom Sukka ñoom Lay njomboor ñoom ñoo ko encadré léegi kon franc léegi encadrement dafa gën a dëgër loolu mooy li am loolu kooku boo jëmee ci moom war nga ko au moins xam nan ngay nan ngay aborder sa combat Tyson de du mbër mu ndaw déedéet ku mën a bëre la ku mën a xeex la waaye bëri ki dem dafa bëri contre nature ku jiga yor ëmma seen na sa ginnaaw ak ñeneen ñeneen wax dëgg yàlla kenn du ne cuune nga Tyson 2 kenn du ne cuune la ci bëri mais bëri ki dem bëri bi mu bëree moom ah du bëri bi nga xam ne moom la waroon bëri te defe naa def na risque bu mel noonu contre Elton jël ca ku ñàkk combat mooy li ko dalaat bëri ki dem poids lourd lu da ngay ñëw rek ne da koy assommé ji déedéet poids lourd da ngay bëre ak moom ci beneen côté boo xam ne da nga koy jéem a déséquilibré pour daan ko loolu moom nañuy daane poids lourd mais poids lourd bu toll ne Franc nekk xale nga bëgg ko enseigné enseigné kut ko kut xuus ko ñëw non non non même bu la bu même boo ko xuusee ñëw bu dajee ak yow bu la jàppee sax dootoo kon kooku ci ay Franc ay wet nga war comme ni mu bëree ak Gora Sock dafa bàyyi Gora Sock combat bi te moo sut Franc ba pare am na do am na poids yaatu na mais kera ni mu bëree ak Franc Gora Sock xanaa xoolaatul film combat boobu kon mais nag làmb comme li may wax rek booy daanu cuune ngay doon Ibrahima Mbaye nee na Franc de respecté ko waaw loolu moom mën nañ ko ci gis parce que loolu moo indi erreur bi lii ko dal dal ko waaw Franc tamit nee na pare na pour tey pour Eumeu Sène ah waaw loolu moom am na si ak Lac de Guiers 2 loolu wax mbër mu mu neex am nga droit laaj li nga bëgg parce que li ma xam daal mooy mbër yu mag yooyu ci kaw di ay VIP moom ay ñii di Franc ay rëg ay guy gi ay amaneex ay Moussa ay Sa mbër yooyu dañoo war a fekk ñoon ci kaw parce que nag waruñu faa nekk ñoom kese di bëre non non non te genre franc yii dañoo war a duggi foofa te ñu nga ca yoon wa te lii bu dakkul dinañ leen jëli waaw loolu moom mooy li am loolu kon Vox naa jaarama mbayang lum assuré na la nga xam ne ni moo doon sow ba mbayang moom ku ne xam na ko la voix d'or moom way rek lay def macha allah moo la nga xam ne ni ñoom ñoo doon waa kër Maodo fay yi hmm? gars yi ñoom Babacar ñoom ñoo yore woon tëgg ma waaw làmb noonu la defe naa mbayang saa bu wooyee stade bi day yëngutu te nit ña itam ñëwoon nañu macha allah maam Balla Mbaye Guy gi combat double XL la ko sunu mu tudde tey le 4 juillet war a am combat bu nar a neex Assane Ndiaye fa jaar combat boo xam ne bu doy waar la foofu tamit may wax Mbaye Guy gi na tey mbër mu mag lay bëreel mbër mu mën a bëre lay bëreel waaw maam la borom top cinq li ko waral mooy mbër ya mu yóbbu top top 5 ñoo bëri am na 12 victoire am 8 défaite kon boo ko boolee ak benn benn match nul muy 21 combat Mbaye Guy gi 7 victoire la ak benn défaite muy muy kon bokkuñu kon maam Balla mooy favori mbay na ci bàyyi xel na bàyyi ci loolu xel waaye maam Balla itam na bàyyi xel ne xale lay bëril waaw xale bu dogu mbay gu gi mbir mu dogu la loolu la wane fi mu nekk nii ci làmb loolu moom sunu làmb munu ko indil waaw mu mel ni looloo ñëw sunu làmb ba tey mu mel ni waa parcella boo xoolee beleen tamit la mu def bébé Birahim démb Fallou Ndiaye fa jaar da ko dóor moom kii moom dañ ko dóor moom mu daanu moom tamit parcelle daal temps te jamono jooja avant loola ba Franc di daan Tyson 2 fële ci arène nationale booy si mbuur ak énergie ba nekk ca Modou Lo tamit mu ngay daan ka nga xam ne moo di Baaba Maal bu sumbe jun fa nga xam ne waroon ca stade bi Iba Mar Diop kon parcelle daal fi mu nekk nii ah, nga ca ah, waaw ñu nga ca de ba tey les arènes ñëw na ci waaw moom nee na daal boo bëggee dégg-dégg moom nee na et deux deux et pour Franc waaw mu ngi ci di combats dix victoires moom Franc muy mbër moo xam ne comme li mu wax rek nañ ko bàyyi xel daa bokk ci gars yi de yëglikaay moom daa jàpp ne Franc dafa humilier Tyson waaw loolu mënees na ko wax parce que façon bi mu ko daane façon bu doy waar la Tyson 2 kenn xaaru kon ñu dóor ko mu wàcc nii nga fekk ko fa def ko li mu ko def non non non waaye nag làmb comme ni ñuy wax rek lépp si mën a nekk ah lépp si mën a am yëglikaay bi dikkaat na si combat bi ak ya ca xew yépp ci ay xew-xew ak Franc la mu wax ne na Tyson 2 daf ma bëggoon humilier waaw humiliation moom ci làmb néew ma mënta am mais balaa nga koy def nit na ko teg ci aw yoon waaye du ne làmb nekkul loo xam ne dangay ngay tëb tëb rek da ngay dóori làmb du xeexu mbedd chaque jour ma wax ko mbëri làmb du xeexu mbedd de gomis làmb plan la naxante la intelligence en mouvement la ku gën a yeew ku la gën a yeew moo la wala xam ne ndaw Ndao Tyson waxoon na ko bi mu bëri ak Tafa Gueye seen deuxième combat te dóor Tafa Gueye arrêt ci bët Tafa Gueye jël ku xam ne nekkatul ci combat bi mu def recul ba génn ñu yaa ngi dégg Tyson bi muy def conférence de presse bi ñu ko laajee ñii ne Tapha Gueye dafa ragal waru ko a daw naan Tyson ne leen pourquoi parce que moom xam ne position bi mu nekk baaxatul dawul wane ginnaaw de dafa arrière génn Tyson ne leen c'est normal parce que bëre xel la Tyson ne Tapha moo ñu dàq bëre parce que ne Tapha Gueye li tax Tyson ne moo ñu dàq bëre parce que ne na lamb intelligence en mouvement la Tyson moo ko wax te ku la gën a yeewu moo la dàq bëre te Tapha Gueye dafa yeewu kon bëri nañu bàyyi ci loolu xel lamb du affaire de guerrier kese jaay fit jéngu non non non lool soo koy def pour man sa carrière du sori bëre xel a koy def am xel mooy bëri naxante parce que ki entraîné nga entraîné da ngay indi am xel ñu entraîné teg la ci aw yoon pour nga jéem ko daan mbayang luum ak na mu yëngale arène ba les arènes ñëw na ci waaw Boy Sine tamit la nga xam ne ni moom la def Baaba Maal loolu lépp les ñëw na ci ak la nga xam ne nii moom la beleen di def bébé Birahim waaw loolu tamit am na ñoom si yëg liggéey ñëw nañ ci film combat bi mel ni kon daal loolu moo ñëwoon boo demee Lutte TV tamit loolu nga fay fekk waaye kon euh, Equivox tamit loolu nga fay fekk Franc tamit waxtaan na fa nañ xaaral benn vidéo ci Equivox na lu ñëpp lu tëwoon ñëpp man Babacar fexe naa ba liggéenti ko ah Habib yaay Franc di ngeen ko gis noonu la demee kon moo lay wan ne weekend bi macha allah neexoon na làmb ji dox na actuellement lutte simple bi boobu mu ngi yëngutu ndax ña fa nga xam ne moo di ca ñaniñ ka nga xam ne ni moom moo di Toubacouta moo fa freiné ngañ seen ngañ seen di xale boo xam ne tamit mu ngi yëg ci lutte simple bi ñu daan ko fa waaye loolu mooy làmb moom it mu ngi jël ay tournoi mais da ngay daan te suba ñu daan la maa nga boo ci nuance bi mu ngoon gaal gi mu mel ni làmb ji tamit yëngu na Iba Mar Diop jàkk na fa samedi waa Vox Arena nekk arène nationale démb Fallou Ndiaye ñëw tamit tëgg ay xale yoo xam ne ñépp ay xale lañ ñu wane seen bopp waaye xale bi ñuy wax Tony maa ngi leen koy wax di ko waxaat nañ ko bàyyi xel ci lamb Tony bu kër mbir ndaw lit simple li mu ci def doy na war te lit avec farat amagu ci defet te ku ne gis na ni muy daan ay adversaire am avec la manière leen di daane démb gis nga ni mu daane bokkaa ba ma bokkal ba ko daane jël bu rëy ba mu ko daan xeex rek mu daw takk ko rek sol ko dëkk bu mu dëgër dóor tànk yóbbu bi walbati daan ko jël bu rëy xale bu jara bàyyi xel la waaw gomis gomis bëri dama koy seetaan de bëri am na lu ma ci xam pa Abdou Fall itam gis nañ ko ñaawlu na la xew démb arène nationale ndax booy commencé waatam nañ di yàq mais heureusement ba soriwut teel lañ leen a calmer ñu réglé waaye li mu wax it nañ ci bàyyi xel nañ ci seen see bàyyi xel mooy ut ñoo xam ne du ñu mel ni Babacar dañuy nekk ñoo xam ne dañ leen di fay yaa ñu ñëw di dimbali police yi ne ci kaw solal leen ay gilet pour ñëw maanaam sécurité bi ci kaw pour képp koo xam ne gis nañ la nga dam sa ñu man laa jàpp ndax yóbbule ci police police yóbbule ci yoon su ko defee boo demee ci yoon ñu teg la ci aw yoon parce que nag arène nationale tabaxuñ ko pour ñu koy yàq Pape Abdou Fall loolu muy wax man dama si ànd yàq gi nañ ko war a bàyyi te ñu koy def dañ leen war a sanctionné voilà parce que kenn defarut kenn du yàq olof na ne golo du bay baabuñ di dunde desul defar ay édifice public ay nit di ko yàq am lu la naqare wala nga am lu la kii wax ko wala nga kii ko wala nga dox dox sa sa doxu ñaxti bu dee dañoo daan sa mbër nga xam ne sport dafa fa yokk yow bi ñëw ci stade bi da nga jàpp ne sa mbër kese moo war a daan kon yow xamoo sport ni sa mbër mën a daane noonu lañ ko mën a daane loolu mooy li am waaw kon gars yi di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax fàllu Ndiaye jaaraama Idaali Ñing Baba Diaw Thiam production Sambay promoteur yëpp ñu ngi leen di jërëjëfal waaye ñi nga xam tamit keral Vox Arena dafa tax ñu bàyyi seen lépp ñëw fekk si ñu ñooñu tamit fa ñu tudd seen tur ñoom Amadia ñoo ñëpp c'est des promoteurs kera dañu ñëw jàpp ci bis bi ah Fallou Ndiaye structure am la bàyyi ko idaal yi noonu Baba Diaw noonu ñoo ñëpp ñëw dugal ci seen loxo ba mbir mi réussir ah kon defe naa ne euh, Habib am na loo may wax ah. moo ak kan Habib Mor waaw non Mor Mor moom Mor Mor Vox Arena la bokk Mor Vox Arena yëfu moom bañ koy sañ mu ngi woon ci biir moom maam lees ñooñu moom ñooy Vox Arena ñooy Equivox Mor kenn du moom moom l'infatigable la ko dafa mën a sonn ci Mor gis naa ne muy sonn ci jamay kenn lay sonn ci Vox Arena kon ñoo ñëpp ñu ngi leen di jaaraamaal bës tamit di ko wax mention spéciale Ibrahima Faye bës borom bës pro ah borom nit TV BP Acti ak seen affiche waa seen affiche tamit ñu ngi leen di jërëjëfal gis nañ kera ci li nga xam ne nii moom moo doon pay-per-view bi niñ ci taxawee doon taxatoon na mais fexe nañ ba def ko kon ñoom Mara ñoom ma ñoom Masamba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm groupe seen affiche bi yëpp vraiment di nuyu tamit waa diaspora bi ñoom ñëpp jënd nañu ay carte seetaan combat bi donte affaire bi jàmp na mais seetaan nañ ci pour wan que la ne ñoom dañuy dund làmb rawatina ñu ñoom Serigne Ndiour ñoom Adama Ndiaye Italie ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee ah ñoom Ndongo Fall Italie ñoom Basoka depuis États-Unis ñoom ñëpp fëgala le grand champion moom tam manqué nii depuis États-Unis di nuyu képp koo xam daal bés bi Habib dugal nga ci sa loxo pour mu réussir mu nekkoon premier nañ ñu xaaraat Vox Arena dina dikkaat indiwaat leneen ci làmb incha allahu rabbi ñaan ñëpp jàmm mais di nuyu waa Petersen yi may solal rawatina Babacar bu Modou Lama nga xam ne ci bés boobu keroog samedi dafa jël lu rafet jox ma ko man ak Lamine nañu sol leen ko Babacar bu Modou Lama nekk Petersen jaaykati yére bu mag a mag mag yére yu baax rek demal ci moom ak kan Cheikh Lambaye tey lii ma sol moo ma ko jox Cheikh Lambaye doomu Fissel Mbadaan maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax moom tamit lii ma sol tey moo ma ko jox ak jib seen tamit depuis Petersen di nuyu képp kuy jaay Petersen dal li rafet yi ma sol démb arène nationale Abdou Sakho tamit bu xarañ loo moo ma ko jox maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax di jaaykatu waa parcelle àq bi ma juum démb ci combat Blindé bi ak bébé mu wàcc maa ngi bu baax a baax a baax Ibulaay maa ngi jéglu waa Parcelles Assainies bi yépp dem parcelle daal fi mu nekk nii am na lu ngeen yore nag war ngeen koo wax nit ñi xaw ma lu xew mais daal macha allah daal xaw ma nag lu xew waaye nag dese ngeen ay bis yu mag ndax c'est Papa Sow loolu àllarba jii nu ji ji di ñëw bu dellusee ca la ñu def face à face ci Iba Mar Diop entrepreneur ak Pape Abdou nañ ci bàyyi xel Modou loo ak ki nga xam ne nii moo di Ama Balde ñu ngi wax seen face à face ca Gambia kon parcelle ah gune yi dañu ngi wane yoon wi yéen mag ñi nag papa nag yaag Moodu yéen a des xaw ma nag fu ngeen jëm waaye cay diggante Moodu ak sëllu bu ndaw loolu kenn du ko lijjanti waaye c'était la tarkinda ah te maama Lamine Garga de mu ngi fi des tege ni teg dege loolu fawes lijjantiku ndax ñooñ faw ñu bëri oh gomis daa gis lu doy waar mais maa ngi bëgg sama soppe yëpp cent pour cent Babacar bi du leen fàtte yàlla na seen jaamu yàgg ñoom jigéen ñoom Grand Lay ñoom Cédric waaye fan si club Babacar ak Vox tamit ñoom Adama Ndiaye ñoom Cissé depuis Brésil Cissé taalibi Baye Niass kenn du yow ci man yow Cissé xam nga li may wax yàlla na sa jàmm yàgg ku lay woo del teg ci yoon di la conseil amoo fayam group baax tamit du ma leen ma sa fàtte ndax ñoom lépp ñoom la Eliman bu tafaatin Baye Zal bu tafaatin Bas bu tafaatin Lamine Ama Sène Issa ñoom ñëpp xaadim laay bu faas tout ku nekk groupe baax rek Babacar lay bégee waaye bàyyi laat bu armé leen fatigable gis nañ ñi ngay sonné si groupe baax yal na la yàlla fay di nuyu ñëpp di nuyu les jeunes amateurs du leen fàtte seen président Gora Ndoye waaye tamit di nuyu suma président Doudou Diagne jekko moom tamit maa ngi koy wax jërëjëf ci taxawaayam si lamb rafet na trop depuis boobu ba tey yàgg na te bàyyiwul Alaji Papa Dieng yow it yàlla na sa jàmm yàgg docteur Macoumba Diouf parrain yëpp ñu ngi leen di bégge ñu ñëwoon jàpp ci bés bi yëpp ak la Faramareen Wally Seck maa ngi koy bégge bu baax a baax Pape Diouf tamit borom génération consciente moom dafa mu bëggal boppam Pape te koo bëgg-bëgg na la moom it maa ngi koy bëggee ndax dégg naa démb mu ngi may te ñu may wan naa Pape a ngi lay démb fële nga xam ne ma doon ci ngénte bouse ba dañu nekkoon nag ci liggéey moo tax ñëw moon ci mais Pape maa ngi lay bëgg série bébé baas yàlla na si jàmm yàgg gomis gars yi pisan loof yàlla jàmm yàgg allahu waahidun yàlla kese moom rek a fi nekk ba beneen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 téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex. wàllu saf na kii ah waay attention Jackson Dabo